asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginaar bi ñu sante yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene dikkaat rek tey jii di fukkeelu fan ak ñeent ci weeru tëdd bii nga xamante ne ñu ngi ci digg bi te suñu boroom digg ci ak njëggal yàlla nañu ko yàlla defal ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne bi weeru teroo ba léegi mu assasatu Wafa bi xaququl iman ni ngi koy ànd ak yéen ni leen ko waxe woon démb tey ñu dalal suñu mbokk moo xam ne mën nañoo wax ne ci liggéey bi la bokk ndax fa mu nekk dafa yëngu tamit lu mel nii rek moo ko fa bàyyi kon tool ga yaatu rek kenn ku nekk ci waar dafa bay kenn ku nekk nekk ci waar dafa bay waaye ñëpp benn jubluwaay rek lañ muy sëriñ Abdou Salaam Silla mu fas yéene baaxe tey mu fas yéene baaxe tey euh, lu am solo lu mat a bàyyi xel di loo xamante ne moom ci lay yëngatu te mu soxal képp koo xamante ne yor nga ab tuut tànk bu war a toll ci jàng muy li ñu tuddee franco arabe te muy lu yees loo xamante ne gouvernement Sénégal moo ko indi moo ko sos ngir nit ñi nga xamante ne xale yi nga xamante ne démb xaj na tubaab rek la naan jàng ñu mën a boole njàngum tubaab ak njàngum arab ak njàngum diine rek tamit teg ci loolu du ci guddal xam naa ne incha allah dana dikk ci lépp loo xamante ne aju na ci wàll boobu ndax moom ci loolu lay yëngatu waaye bala ma koy jox kàddu gi rek damay tënk aslëf ci ay jaar-jaaram door ko jox kàddu gi mu jànge alxuraanul karim ci ku ñu wax sëriñ Maas Thiaw sëriñ Maas Thiaw mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim moo ko tàmbali tamit njàngum xam-xam lenn ci téere diine yi foofee foofu la ko jànge ginnaaw bi nag la dugg ci benn école bu ñu wax madrasatu Babi Salaam foofee la defee cycle primaire am ba foofee la amee li ñuy wax certificat ginnaaw bi mu dugg ci jënn daal ju mag ju nekk foofu ci Ndakaaru ñu koy wax xarakatul falaax ñu bëree bëri xam ko mu jànge fa cycle mu jànge fa ba amee fa brevet amee foofa tamit bac ba ci atum 1993 la ko yàlla baaxee mu at mi ci concours yi nga xamante ne moom la ñu def ngir jàngale ci daara yi nga xamante ne gouvernement bi moo koy segg ñu koy wooye EFI mu dugg EFI de formation génn ñu affecté ko Kolda kon jàngale na Kolda ginnaaw bi ñu jëlee ko foofu andi ko Dakar muy jàngale ci benn école boo xamante ne mi ngi nekk foofu ci Yaraax bi mu nekkee ci Ndakaaru tamit di jàngale ci école yi française yi da ko boole woon ak di joxe ay cours ci daara ju mag jooju nga xamante ne moom la Serigne Mourtada Mbacké sos foofu ci Ndakaaru muy institut Al Azhar bi nekk foofu ci Guédiawaye mu jàngale fa lu mat juróom-ñaari at bi fa tamit ay fonctions yu baree bari jàngale fa nekk fa responsable nekkoon fa sax njiitul ñi nga xamante ne ñooy saytu lu jëm ci waay walla examen yi ci école boobu ba ci atum 2007 la ko yàlla baaxee tamit mu jàll ci concours bi nga xamante ne ci lañuy tànn inspecteur yi nga xamante ne ñoo war a saytu njàngum araab mi ci département yi wala ci région yi mu dugg école normale supérieure dafa formation diggante 2007 ba 2011 bi mu génnee nag ci lañ ko affecté fii ci Kébémer mu nekk fi inspecteur de l'enseignement en langue arabe yilif njàngaleem arabe mi fii ci département Kébémer di ko sëy kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ni moom lañu ñu dalal fii ci jataay bi tey ni ma leen ko waxee ci njàlbe tamit mu fas yéene seq ak tomb boo xam ne tomb bu ma xam la ndax ci lay yëngatu te muy tomb bu am solo muy école franco arab yi nii école franco arabe yi ak lépp loo xamante ne aju na ci yan jafe-jafe moo ci am kañ lañ ko sos li tax ñu sos ko ak yan résultat la am ak ban avenir la am ak bu fekkente ne nekkatu fi lan moo ko war a wuutu kon yaakaar naa ne loolu lu am am solo loo xamante ne lu mat a bàyyi la Euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy fàttali mbooloo mi programme semaine bii nga xamante ne incha allah moom la ñuy door suba kon suba ci altine ji incha allah mu Mouhamed Lo bàyyi ko ba Thiès moom la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane muy waxtaane ak tabshir fi Sénégal bu dee ci talaata ji Moustapha Jaxate la ñuy dalal incha allah mu fas yéene waxtaane bay na sutuur maanaam lu jëm ci wàllu presse bi ak lislaam bu dee ci àllarba ji Serigne Mokhtar Sarr lañ fas yéene dalal muy waxtaane laa yatihi l baatil muy alxuraan ji nga xamante ne lenn caaxaan amu ci te du ci am bu mukk bu dee ci alxames ji sëriñ Abdou Khadir Lo Jili eh, la ñuy dalal muy waxtaane manahijuna ad-dirasiya mooy sunu méthode traditionnelle bii nga xamante ne moom la ñuy jànge alxuraanul karim ak lépp loo xamante ne aju na ci bu demee ci ajjuma ji sëriñ Abdou Khadir Bousso la ñuy fas yéene dalal incha allah mu waxtaane lu jëm ci julli bu dee gaaw sëriñ Moxtaar Diop la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane islaahu zaatil bayn dibeer incha allah sëriñ Babacar fay la wax dañuy dalal incha allah mu fas yéene waxtaane at tahziyatul xadiisa muy alimentation moderne kon incha allah loolu mooy programme semaine bii nga xamante ni incha allah moom la ñuy dugg suba yàlla ñu ci yàlla dugal ak bismillahi rahmaani rahim génn nañu ci ak alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ne ba tey ñu joxe rek euh, rajo yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi ak heure yi nga xamante ne ci lañ koy jàllale tàmbalee ko ci Darou Moukhty FM ñoom bi ñu tàmbalee koor gi ba léegi bis bu nekk en direct lañuy ñuy def ak ñun te bis bu nekk tamit danañ tegaat waxtaan wi lu commencé benn waxtu ci bëccëg bu tëglee fanweeri mii naka noonu Diso FM ñoom tamit vingt 22 heures la ñuy teg waxtaan wi. bu dee Lamp Fall FM tamit danañ ko teg naka noonu Sud FM Walf Fadjri ñoom 18h la ñuy teg waxtaan wi rajo Touba international ñoom 13h la ñuy teg waxtaan wi RTS Touba Mbacké RFM bu Mbacké ak Touba Média bu dee Touba Média ñoom 22 moom la ñuy teg waxtaan wi jant bi FM tamit ñoom 0h lañuy teg waxtaan wi. kon bu dee ci wàllu rajo yi rajo yooyu mooy yi nga xamante ne ku ku koy topp rek mën ngaa ànd ak ñun ci jataay yi nga xamante ne moom la ñu amal ci béréb bii bu dee ci wàllu télévision yi tamit al muridiya ak euh, lamp tv ak touba tv télévision yooyu dañuy jàllale waxtaan wi bu dee ci wàllu site internet yi touba vision ak murid point info ak touba info xasida online Murid TV Al Azhar Touba point com Baol Média site internet yooyu yëpp ku ku ci ku koy si ku ci dugg rek incha allah da nga mën a ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal bi. bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyo bi sunu xalifa bu tedd bi cheikh. sëñ Cheikh Khady yi nga xam ne moo fi taxaw tey taxawaayu boroom daaru di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko wér bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ak taalibe ji muy liggéeyal sëñ bi ba ilaa abad di ziyaar itam mbooleem kilifa yi nekk ci daaru di sëti borom daaru yi ak ñu ànd ak ñoom nekk fi li nga xam ne moom la borom daaru bëggoon ci dëkk bi di leen ziyaar bu baax ñoom ñépp di ñaan yàlla barke weeru koor wu tedd wi yàlla na ko sotti ci mbooleen kilifay diine yi ci réew mi di itam sàkku ci jotaay bi ngeen jéggal ma tuuti rekk ma sant mu assasatul wafa mu assasatul wafa bi xuquqil iman ma ci tudd mbootaay nit ñi nga xam ne moom lañu ñu wax al lajna saqafiya bi nga xam ne mooy taxawal waxtaan yu mel nii di leen sant ci kóolute gi ak sàkku bi nga xam ne sàkku nañu ko ci man ma def waxtaan ci mawdu bi mawdu bi nag comme ni ko sëñ sëñ Kara mi jiitu ci wax ji leerale sànq mu ngi aju ci li ñu tuddee a taalimul faransi la arabi fi Sénégal al waaqi wal mustaqbal njàngaleem franco arab franco arab nag ngeen bàyyi xel bu baax dañoo jiital franco français bi doora teg arab franco arab loolu nag lu ama am solo la moo tax ma ci attirer seen attention franco arab ci senegal wan ci yan tolluwaay la nekk ana yan jéego ñoo ko indi ci yan tolluwaay la nekk ak itam lan la ñuy xaar ci moom ëllëg ak itam ndax sax doy na pour ñu mën a wax ni suñ ko taxawalee ba mu taxaw am nañu li ñuy tuddee daara joo xam ne dana mucc ci ayib li ñu soxla cim njàng danañu ko mën a defal loolu it laaj la boo xam ne danañ danañ ci rotal ay xalaat waxtaan wi nag comme ni ngeen ko xamee mawdu bi dañ ko tànn ngir xam ni fi nga xam ne moom la njàng toll ci Sénégal tey ñu koy tuddee système éducatif bu Sénégal fi mu toll nii dafa toll ci diggante bu xataxat boo xam ne yëngu yi ciy xew bari na bi ci gën a ràññeeku ci jamono yi ñuy waxtaan ak yéen mooy li ñuy tuddee ay assises nationales ci éducation am na te ki ñu wax professeur Abdou Salam Sall ancien recteur yor ko am na benn ay jotaay yu waaja amal ci xalaataat ci njàngale ci miim réew ndax gis nañ ni ba mu tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla liñ doon xaar ci système bi liñ doon xaar ci njàngale gis nañ ni ci wàllu yar ci wàllu boroomi xam-xam yu xam seen bopp xam seen culture xam seen cosaan xam seen aajo dooni sénégalais loola sori na ak lool ak li nga xam ne tey ji moom lañu nemmeeku ci loo xam ne njàngale ci Sénégal jur na ko loola waral ñuy wax li ñu tudde assise nationale di am ay taxawaay ay jotaay ci biir jotaay yooyu nag gis nañ ni njàngum diine njàngum arab ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax kon dana baax ñun ñi nga xam ne moo ñuy teel ñun itam ñu def ci ay waxtaan xalaat ci laallahum ñoom itam ñu jëkk ko jël ko fil itibaar maanaam bàyyi ci xel ba bu ñu nas ëllëg leneen ñu mën a bàyyi xel bu baax njàngam diine fii ci mim réew te loolu dinañ leeral ci kanam ana lan moo ko waral waxtaan wi nag ci ñetti ponk lay tëdd mawdu bu yaatu la waaye xat-xatu jamono danañu tënk ba nga xam ne faaw ñu tënk ko leeral yi nga xam ne moo ci am solo ngir ñu mën koo dégg jële ci lu ñu jariñ ñetti ponk la bi ci njëkk mooy li ma mën a tuddee al madxal a taarix yi maanaam historique bi njàngaleem arab ci Sénégal kañ la fu mu jaar ba yegsi fii njàngaleem français ci Sénégal kañ la fu mu jaar ba yegsi fii ana lan moo indi tey njàngaleem franco arabe lu tax ñu boole leen ñoom ñaar lan la jur loolu danaa ci jaar danaa jaar sam bi ñu ñoom ñaar ba ñu ñëwee ba egsi fii ana lan mooy tolluwaay ak anam yi nga xam ne ak mbir yi nga xam ne tax na li ñuy wax franco arabe ñu boole njàngaleem français njàngaleem arab ndax ñoom ñaar mësuñu ànd li tax ñu dem ba yàgg ñu boole leen mu nekk beneen model beneen njàngalin wu bees ana lan moo ko waral lan moo ko waral loolu it danañ ko jàngat danañu jàngat itam euh, euh, sunu gouvernement bi nga xam ne moo indi li ñuy wax franco arab lana lan moom la ci jublu ñu xam ko dana ci baax population itam ñun ñi nga xam ne ñooy jàng di jàngale ak waajuru donga itam ñun waa Sénégal ñun am na lu ñuy séntu itam ci njàngaleem diine ak njàngaleem arab ci mim réew ak lu ñuy xaar ci franco arabe itam bi ko dugalee léegi depuis 2002 ana lan la la jariñ ana lan la la defar lan la indi comme loo xam ne ay ndollent la ci wàllu njàngale fii ci am réew ci sunu Sénégal dinañu jàngat itam yan problème yan jafe-jafe ci lay dund ci la nekk yoo xam ne buñ ci taxawul yàlla mën naa def li nga xam ne moom lañ ci nam duñ ko ci gis kon yooyu jafe-jafe jàngat ko itam baax na ci bi ci mujj nag mooy mustaqbalu a taalim al la al arabi fi senegal lan mooy mustaqbal ëllëgam lu mu doon yooyu daal ci tënk ci la ñuy tënk waxtaan wi ci lu gaaw rek ndax jamono xat na bi ci njëkk mooy al madxal a taarixi ñun ñëpp xam nañu ni ku ne xam na ni lislaam mi ngi dugg senegaal ci alqarn alxaadi achara am na sax ñu wax lu ko jiitu wax neuvième siècle am ñu ne dixième siècle waaye ci wasaayiq yi nga xam ne ñu ëpp ci lañuy sukkandiku yooyu ay firnde nga ca yuy won ni onzième onzième siècle moom islaam dugg na Sénégal kon mënees naa tàmbali foofu liñ ci namm mooy dañoo bëgg a wax ni jàngaleem islaam jàngaleem islaam jàngaleem diine jàngaleem arab mu ngi dugg ci Sénégal ci bi fi lislaam duggee ndax ñoom ñaar ñoo ànd ku ne xam na ni lislaam bu ñuy jàng luga arabiya ngir dégg lislaam ñooy ndab li nga xam ne ci lañu koy def pour mën koo jox doomu aadama yi kon li ci tegtal rekk mooy bala ngaa mën a taxawee say farata faw nga mokkal alquran wala faw nga mokkal fatiha moom darura la faw nga mokkal ko te ci luga arabiya la ñëw donc loolu moo lëkkale luga arabiya ak diin al islaam yi te ñoom ñaar ñoo mas di ànd kon jamono bi fi lislaam duggee rek fi la fi njàngaleem arab ak njàngaleem diine dugg ci senegal loolu onzième siècle la li ci koy gën a tegtal fii ci senegal itam moo di ci jamono boobu ba mu fi duggee rek ci ay lu tolloog ñetti téeméer jëm ñeenti téeméeri at gis nañ ni senegal am na fi ay daara yu mag yu fi newoon di jàngale alquran di jàngale luga arabiya lu mel ni daara bi nekkoon Pire nga xam ne jaamia sax lañ koy woowe la fa génn ndax li mu génne ci ay kàngam ci wàllu diine ñoo xam ne dañ fa bàyyi koo sosi feneeni daara tasaare alquran tasaare xam-xam loola moom misaal la ci lu mel ni itam daaray kokki nga xamante ni yooyu yëpp ci dix-septième siècle lañ fi nekkoon muy ay daara yoo xam ne wax dëgg yàlla firnde leen ci ne bi fi lislaam duggee njàngaleem diine ak njàngaleem arab doon na tasaaroo Sénégal bu baax a baax a baax loola ci tënk mooy ci li jiitu avant colonial di ñëw Sénégal njàngaleem alxuraan njàngaleem diine daana fi dox ñuy sos ay école mag ñi di jàngale ñu ñu jàngal suñu demee ba mat ay sëriñ ñu ubbil leen yeneen i daara ci yeneen i dëkk bu boobaa njàngale alxuraan bi gën di tasaaroo di gën di yaatu loolu moo fi doon dox waaye seetlu nañ ni bi nga xam ne li ñuy wax istimaar muy colonisateur yi ñëw nañ te seen yéene nekkoon sampu ci réew mi not réew mi yilif réew mi fawuñu jàngat fu ñuy jaar yan pexe lañuy nas ba loolu leen yëkkati ñu mën a an mu mën a antu bi leen ci njëkkoon a bi leen ci gënoon a jaaxal nag mooy njàngaleem diine mi nga xam ne tasaawaroon na gis ni ñu giseen mag nit ñi wékku ci sunu mag ñu baax ñi wékku ci seen njàngale ñu leen di orienté nekk ay làmp yu leeralal doomu aadama yi ba ñu xam fu ñuy teg seen tànk loola tubaab bi faw mu sàkk ci ay pexe bu loolu amul li mu bëgg du am looloo tax li mu njëkk a def mooy li ñuy wax al ghazwul saqaafi fexe ba culture islamique boobu maanaam diine boobu Euh, xamuk diine boobu ak bëgguk diine googu nekkoon ci doomu aada yi ak xër giñ ci xër ñu fexe ba remplacer ko ak leneen loo xam ne mën nañ koy tuddee saqaafa garbiya lay doon maanaam culture occidentale lay nekk fexe ba dootuñ xamati seen cosaan fexe ba ñu bàyyi njàngum diine fexe ba ñu bàyyi njàngum arab tey jàng euh, euh, seen langue ñoom langue française loolu nag ba mu amee pexe yiñ ci joyal ci tënk rek ci lu gaaw ndax xataay bi tax na yu bari duñ ci mën a jaar gouverneur bu ñuy wax Faidherbe en 1857 la njëkk a jël dogal ne léegi ndax booba daara yaa ngi ubbeeku fu ne mag ñu baax ñi loolu moo ne woon seen stratégie loolu moo nekkoon seen yoonu liggéey fu ñu dajale ay donga jàngal leen def ci ñoom li ñu war a def ci ñoom ba ñu mat li ñu leen di doyee ñu yebal leen ñu sampi ay daara ak neexoon tey senegaal ay tubaab bañ fee jaar liggéeyu mag ñooña wëy kon tey danañ gis beneen senegaal waaye dañoo ñëw xaraka boobu ñu fexe ba gàllankoor ko gàllankoor ko ndax 1857 comme ni ma ko waxee sànq ci la fadeer bu ne kenn sañatu fi ubbi daara te amoo autorisation wu gouverneur kenn sañatu fi ubbi kaara te amoo autorisation gouverneur te bala nga koy am faw nga ñëw ñu teste la xool la yaay kan soog laa mën a defal autorisation bi yooyu. commencé nekk ay gàllankoor ci lu soriwul dara ñu daal di jëlaat beneen dogal ci 1870 ne bala ngay képp ku yoreti daara képp ku yoreti daara faw nga jàngale li ñuy wax luga français ya français ci sa biir daara loolu beneen dogal la waaye yamuñu ca en ñu naan ni daal. léegi sax ndax gis nañ ni ñi nga xam ne daa nañ leen jox autorisation ñuy ubbi daa dañ na gis ni daara yi malgré nee nañu bala ngay amati bala ngay ubbeeti daara ñu autoriser la boo xamante ni autorisation boo xam ne gouverneur moo la koy jox dogal boobu jël nañ ko waaye taxul daara yi yaatu gi muy yaatu ak ubbeeku gi muy ubbeeku di yokk mu mel ni gouvernement gouverneur yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal ci Ndar da doon laamisoo ak sëriñ daara yi wala di doxal ak ñoom yeneen ci suuf yu bokkul tax ñu ne sax léegi en 1896 ñu ne léegi sax gouverneur bi nekk Sénégal wala foofu ñuy wax Afrique occident occidentale français dootu la joxati mais fële ca Europe fa lañ lay joxe autorisation bi maanaam soo defee demande dañ koy yóbbu càmbare ko foofu. soot naka lañ la koy joxe ndax stratégie la loola di wëy di wëy ba ñu dugg ci vingtième siècle ba ci 1903 xam ngeen ni ci la tubaab yi génne beneen dogal ni tere nañu yalwaan ci ndax booba itam beneen anam la ci xeet yi nga xam ne ci la ñuy gàllankoore daara yi ndax booba ku ne xam na ni donga yi moom jàng bu ñu paree dem yalwaane lu ñu lekk ñëwaat toog jàng lañ boo leen bëggee tere yalwaan loolu it gàllankoor la loola noona lañ doon gàllankooree ak yeneen i dogal yu baree bari pour wan leen ni ñoom ci seen bopp faw ñu fexe ba fay njàngum diine ci Sénégal taxawal njàngum tubaab te loolu dana leer ci effort ak pexe yi xam ne def nañ ko ci enseignement français ba mu taxaw ci réew mi loolu ba mu amee ba mu amee taxul li ñu bëgg ñoom ci seen bopp mu am ndax ku ne xam ne ni dañ fee fekkoon ay mag ñu dëggu ay mag ñu dogu ay nag yu xam lan moo leen bàyyi ci kaw suuf risaala boobu mag ñi yanu woon fas yéene ko doxal ci senegaal daa ëpp doole lool seeni pexe moo tax malgré def nañu gàllankoor ci wet gu ne terewul mag ñi fexe nañ ba rawale njàng ak njàngale ci mim réew am na sax ci mag ñi ñoo xam ne ngànnaay lañ ko defoon pour jàmmaarloog tubaab yi waaye wunu wutiwuñu ay ay ay xeej ak fital ngir jàkkaarloo ak ñoom mais dañoo fexe ba defar nit ñi jàngal leen seen diine yar leen ci ker ci yon ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa tubaab yi dootuñu leen mën a dara loola nekkoon seen arme bu ñu doon xeexe loola waxi Sëriñ Tuubaa bu réy bi day na ci sëkk tegtal wa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wattuqaa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu kon jihaadam mooy xam-xam ragal yàlla def ko ci doomu aadama yi yar ci nit ñi loolu nekkoon jihaadam amoon na it yeneen i mag ñoo xam ne ci njàngale wax dëgg yàlla def nañ ci lu ama am solo fexe woon ba nit ñu bari xam lan mooy seen diine ba tubaab yi lañ bëggoon ci ñoom amuñu ko loola itam pour wane ni pexey tubaab yi bari na gàllankoor na gaa waaye terewul ñàngaleem diine bi mi ngi continuer ndax dogu mag ñu baax ñooñu ndax dem nañu ba en 1924 en 1924 ki ñuy wax Ngalandou Diouf bi muy def campagne sax daf doon campagne ne bu ma gañee dinaa fexe bañ jugal njàngaleem diine ci école yi maanaam loolu loo ci yëgee mooy wan ni réew mi moom tubaab yi ñu ngi fi samp njàngaleem français waaye taxawul nit ñi moom njàngaleem arab moo leen bëgg ba tax na ak njàngaleem diine ba tax na képp ku bëgg sax seeni baat pour ñu woteel la faaw nga naxaleen loolu faaw nga naxaleen loolu comme ni muy amee ba léegi sax ci sunu jamono bi loola Ngalandou juuf def na ko en 1924 ci élection ki ñuy wax tam euh, euh, Lamine Gueye moo ko def en 1924 ci campagne am Ngalandou Diouf aussi def na ko en 1927 ci campagne pour wan le ne loolu moom nekkoon na matlab boo xam ne képp koo xamante ni fexe woon nga ba doxal ko di kas bu ci siyaasa loo xam ne mën na laa jàppale ba nga mën a jàll ci say élection waaye yamut foofu bi ñu demee ba tey ci jamonoy tubaab yi terewul nit ñaa ngi doon jéem saa su ne di fexe di ubbi ay daara di ubbi ay école franco arabe di ubbi ay daara di jàngal nit ñi arab di jàngal nit ñi diine loolu ràññee nañ ci ku ñuy wax Lamine Kaba moom mi ngi jóge woon Guinée waaye fexoon na ba am autorisation ci tubaab yi pour samp benn daara di ca jàngale diine ak luga arabiya ak luga faransiya fii ci dakaar loolu 1937 la woon waaye euh, bañ ko joxee autorisation bi gis nit ñi niñ ko jubloo njàngale mi di tegu ci aw yoon juróom-ñeenti at la liggéey tubaab yi jël dogal tëj daara ba te ba léegi waxuñu lu tax ñu tëj ko loola itam yeneen i pexe nasuwaat na ci ku ñuy wax alxaaji mahmoud ba nga xam ne moom moo taxawal li ñu tuddee ay lu mel ni falaax ak école yu mel noonu nga xam ne moom 1946 moom itam la jógoon di bëgg ndax moom yitte mooy nekkoon nekkutoon senegal rek mais fi ñuy wax Afrique occidentale français ci la bëggoon fexe rek ba ghazwu fii boobu nga xam ne français yi ñu ngi koy def moom itam mu fexe ba contre contrecarrer leen ba fexe moom itam njàngaleem diine tasaaroo fii ci Afrique occidentale moom itam loolu nekkoon na ay liggéeyam ba tax mu dem fu mel ni Mali def fa école fii Sénégal itam defoon na fi ay école mujj gi itam ay écoles yu bari tasaaroo nañ ci yoo xamante ni ci ay pexeem ci la soso loola am na ba itam continuer ba ñëwaat. ba ñu gën jege si indépendance ba 1959 ku ñu weex euh, sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu anhu moom itam sos ca Jurbel daara école franco arabe sos na ko Jurbel école boo xam ne dañ fay jàngalee lislaam nga xamante ni loolu moo njëkk nekk école ci Bawol boo xam ne wuute na ak li ñu xamoon ci jàngukaay muy daara maanaam école boo xam ne école nizaam yi la nit ñi di jàng di jàng toog ci ay banc tabaxal leen ni classe. foofu la njëkk a am mu nekkoon benn révolution boo xamante ni wax dëgg yàlla ay jafe-jafe sax amoon na ca ca sos ga xam na xataay bi dana tax yu bari duñ ci mën a jàll waaye dañuy joxe rek ay exemple won ni malgré gàllankoor yi amoon yépp terewul nit Sénégalais yi nit ñi moom ñi ngi doon def ay pexe di ubbi ay daara ak école franco arabe di jàngale diine ba koroog ba nit ñuy amee indépendance bi ñu amee indépendance en 1960 nag ba tey taxul mi di changé joxe nañ joxe nañ réew mi teg ko ci loxo yi nit ku ñuul waaye taxul gis-gis bi changé taxul njàngalem diine ñu ne ah ginnaaw nit ñi de moom lañ bëgg kon nañ ko fulaal nañ ko jox palaasam ci njàngale mi ci école yi taxul mu am loolu taxul mu am dañoo continuer di ko nasaxal continuer di doxal seenu doxil bàyyiwuñu ko benn yoon xel nga xamante ni njàngaleem diine moom dafa des rek nekk ci loxoy sëriñ si ak nekk ci loxoy jullit ñi ñoom ñu ciy jéem lu ñu man waaye benn gouvernement fekku leen ci loolu noonu la taxawee ku mel ni Cheikh Ibrahima ñas bi ñu amee indépendance ca dakaar ubbi na fa école en 1961 ku mel ni Cheikh Ahmed Moubarak loo ubbi école fee ci Louga tudde ko Manaarul Huda en 1962 ndax booba itam wax dëgg yàlla ni nga xam ne jafe-jafe yi ñu lañ doon jafeel bi tubaab yi demee wàññiku na léegi mën ngaa ba am autorisation dem ubbi sa école sos ko ba pare nag topp état bi li jënti say kayit ba ko ñu lay autorisé waaye lu jiitu loola booba benn kenn ñemewu ko woon ca jamono yi tubaab yi loolu itam dox na ba ci 1900 ba ci année 70 yi ay écoles yu bari sosu fi loolu yëpp day wane ni njàngaleem arab njàngaleem diine ci senegal tubaab yi gàllankoor nañ ko waaye terewul euh, yegg na ba sore sori loolu ci tënk ba ci ñëw ci soso année soixante-dix yi nga xamante ni ñu mel ni Cheikh Mouhamadul Moutada ci la sos en 1974 daaram yi muy tuddee al azhar te ñu yaatu lool ci Sénégal yi ci Séné si ci Sénégal ak ak ñeneen ak ñeneen ndax moom mi ngi sas daaray ndaam bi en 1974 ñu tegaat ci juróomi at mu sos bi nekk Kaolack noonu lañ commencé di sos ay daara yu mag ba tey fu ne ci euh, dëkk yu mag yi boo fa demee fekk fa ab institut al azhar bu mag a mag kon noonu la continuer ba ba sunu jamono ji nga xam ne ci la ñu nekk ba léegi école yaa ngi wéy di ubbi daara yi di takk nit ñi di jàng diine di jàng seen di jàng luxa arab yi waaye nag njàngu français moom nga xam ne dafa amoon baay dafa amoon baay moom 1916 la tubaab yi njëkk ubbi fii ca Ndar benn école nga xam ne dañoo jëli benn jàngalekat ci Europe bu ñuy tuddee Jean indi ko Ndar ngir muy jàngale français ci lañ commencé ci nag danaan jël booba fexe ba jàng wolof bi su ko defee di ko traduire di leen ko jàngal ci français li ñuy wax ci olof mu fexe ba ñu koy wax ci ci français noonu la doon doxe waaye yàggul dara moom itam ñu arrêté ko ne ko li ngay def day tax seen langue wolof bii muy langue maternelle bi da koy dooleel ñun dañoo bëgg parce que ñoom dañu gisoon ni am na tubaab yu ko biral wax ko ñu ne bi ñu ñëwee Afrique occidentale fekkuñu fi langue bu àttan ab culture maanaam suñu langue yi amoon ñun suñu kàllaama yi ñu amoon attanul suñu aada attanul sunu cosaan mënu ko wone kon bu ñu bëggee def nit ñi ñu nekk nit ñu am culture am saqaafa faw ñu jox leen sunu làng ñun ndax seen làng attanu ko looloo tax lépp lu doon yëkkati sunu làng yi di wolof di pël di joolaa loola kenn mësu ko woon xalaat ci jamonoy tubaab yi ba tax na gendarme boobu méthodome boobu dañ ko mujj arrêté tëj école ba ne ko lii dafay valoriser langue wolof ndax boo leen di jàngal langue tubaab yaa ngi leen di jàngalaale langue wolof looloo tax ñu arrêté ko bi ñu ko arrêté jël école bi jox ko église ñi ñuy tuddee ay ay frère Plomel benn maj ixwaan la yoo xamante ni ci kanisa bi la ñuy liggéey njàngale ak yar mooy seen métier ñoom lañ joxoon école bi biñ leen joxee école bi ñuy jàngale français di jël doomu réew mi di leen jàngal français waaye gis nañ ni ci boobu jamono ci la résistance bi ñu doon gis ci mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkaloon diine gën a tar ndax lan ndax dañoo yëg ni léegi nekkatul moom sunum réew rek not ñu waaye dañoo bëgg nag jële fi diine lislaam taxawal fi diine nasaraan ndax njàngale comme ni ngeen ko xamee dafa doon loo xam ne dafa am solo doon nag lu garaaw a garaaw ba nga xam ne lépp loo bëgg a jàllale rek boo ko jaaralee ci école yi xale yii tey li ngay def ci ñoom bu ëllëgee lay ngay gis meññant bi kon gis nañ ni njàngale ci boobu jamono ci église bi ñoo ko doon saytu ñu gis ni biñ ko joxee église bi tax na li ñu doon tuddee résistance mooy bañkat yi woon ci réew mi gën di bañ di gën di fiqu di gën di déclarer li ñu tuddee jihaad ñi nga xamante ni ñu ngi koy def ci anamu jàngale ak yar gën a sóobu ca loola ba ni nga xam ne ci la ñu indi affecté fi beneen gouverneur bu bees bu ñuy tuddee Faidherbe en 1855 moom bi mu ñëwee mu gis ni. loola du yoon wu baax nañ fexe ba taqale njàngale mi ñu fexe ba école bi nekk école laïque du diine chrétien du diine lislaam kenn du ko ci jox kenn nee na nekk école laïque pour nit ñi gis ni ñun samp fi diine nasaraan jële fi diine lislaam indiwuñu waaye ay question politique ak ay question euh, économique moo ñu fi indi waaye du loolu loolu lañ bëggoon a xamal loolu moo tax moom Faidherbe bi bi mu ñëwee mu daal di soppi loola daal ubbi daara joo xamante ni daara laïque la gële ko ci loxo kanisa bi jox ko ñeneen ñoo xamante ni wàllu diina laaluñu ci dara pour ñu saytu njàngal mi foofa ca Ndar école yooyu moom lañ doon tuddee euh, moom lañ doon tuddee madrasatu rahain école des des otages wala madrasatu abnai aruasa école des fils des chef moom lañ ko doon tudde école yooyu ay école laïque la dañ leen doon jàngal former leen ba ñu mën taxawaay yi nga xam ne moom la administration bi soxla ci réew mi ñu mën di fa taxaw di ko liggéey ay itam nekk aussi ay interpret diggante tubaab yi ak ak wolof yi loola sax dem nañ ca ba ubbi beneen boo xamante ni ñu ngi ko tuddee madrasa boo xamante ni dañ ca doon former aussi ñoo xam ne dañuy tarjama min al arabiya ila al faransiya wa min al faransiya ila al arabiya ñooñu itam pour kitaabaat ak jokko yu ñu doon def ak mag ñu baax mi nga xam ne luga arabiya lañ doon bindanteeg ñoom ñu di leen mën di tontu di man di recevoir asi seeni seeni mbind noonu ñu dem nag ba 1903 loola yépp dañ daan def xale yi ku ci jàng ba dëgër ñu jël yóbbu France fa ngay defe ji sa enseignement euh, moyen secondaire ak université nga xam ne booba waa nag daañu la jekku def ci ñëw li ñu bëgg a def ci yow boo ñëwee nekk ab tubaab bu sotti loola moo leen te yitteloon waaye bi ñu ñëwee ba 1903 la ñuy soog a tëralal nag Sénégal lu ñu mën a tudde programme scolaire fii ci Sénégal waaye programme ba itam dégg ko rek programme mu français la waaye du programme ndax ku ne xam na ni ab programme scolaire dañ koy tëral ci li nga xam ne moom la xeet wi nga koy tëralal xam ci aada ci cosaan ci ay baax baax ci ay jikko yu baax ak lu rafet ci foofu nga ko war a sukkandikoo waaye waroo koo jëggaani di leen ko defal loolu moom la def en 1903 loolu itam ci tënk moo doon dox rek ci tënk moo doon dox moo doon dox système loolu ñu fi tëraloon 1903 moo doon dox ba ni ñu amee indépendance bi ñu amee indépendance ci lañu am ñun lu ñu mën a tuddee nga xam ne léegi bàyyi nañu réew mi ci loxoy nit ñu ñuul ñi ci la ñu soogee tëgg ab programme scolaire boo xam ne moom itam. daanaka soixante quinze pour cent yëpp dañ ko copier ci français yi rek indi tegal ñu bañ nañ ko ba ci livre yi yiñ doon jàngale exemple yañ cay joxe buñ lay jàngal xisaab di la nattal litre ndox au lieu wax la litre ndox waaye litre sàngara lañ lay wax di la jox nga xam ne booba sénégalais yi yi jàng ci école yi mboolem xeetu sàngara yëpp dañuy xam ni mu tudd te yooyu yëpp ci biir téere yi ci lañ ko daan dugal. ba nga xam ne di nga ko maîtriser yow xam ko bu baax ba boo ko soxlaayee xëj na doo ay jafe-jafe léegi nag man ci wàllu jaar-jaar yooyu ndax waxtu wi du maye ñu jaar ci tafasil yépp ci wàllu jaar-jaaru njàngaleem diina ak arab ci Sénégal ak njàngaleem français mi nga xam ne moom la tubaab yi dooleeloon ci Sénégal ba fi mu egsi ci ba bi mu egsi ci ci ci en 1960 bi ñu amee indépendance man dama fay taxaw def fa benn seetlu bu ndaw rekk boo xam ne dama koy faral di wax damay wax ni bu ñu seetloo ba seetlu dañuy gis ni njàngaleem diine ak luga arabiya ñun ñoo ko tànnal sunu bopp ngir man sukkandiku dégge ci sunu diine loola ñun ñoo ko tànnal sunu bopp mais bu dee njàngaleem tubaab la tubaab yi ci boppam ñoo ñu ko indil ci anam boo xam ne mënees naa wax nii dañ ñu koo naxe forcé ñu ko ba ñu jël ko kon ci kaw loolu dinaa mën a wax li ñuy wax ashar'iyya muy légitimité fii ci Sénégal njàngaleem luga arabiya ak njàngaleem diine moo ko ëpp fuuf ci Sénégal ci njàngaleem français li ñuy wax légitimité légitimité maanaam njàngale koo gën a jaadu ci ci mim réew jàngale mi français ndax li nga tànnal sa bopp ak liñ la forcé jox la ko du benn léegi nag am nañu sunu indépendance tabax nañu sunu système scolaire maanaam utal nañ sunu bopp sunuy daara di saytul sunu bopp sunum jàngale waaye nag ñi nga xam ne ñoo ñu yar tàggat ñu ci wàllu yorin ak doxalin am réew def nañ ci ñun loo xam ne seeni xalaat daanaka moom la ñuy wëyal donte am na tuuti ak coppite guñ ca def ndax Senghor ba muy tëral programme yi dugal nañ ci arab waaye diine déedéet ndax laïcité ba nga xam ne moom la Faidherbe bu jàllale woon moom la conservé diine déedéet luga arab yi daal mën nañ fa jàngale te nañ yam ci jàngale asadun baabun kitaabun <laughs> loola noonu la tëdde woon ba ñu ñëw ci 1960 comme ni ma ko waxe ñu commencé am sunu programme bopp di jàngale sunu njàngaleem bopp ñu koy saytul sunu bopp waaye ci anam boo xam ne wax dëgg yàlla wuutewul ak anam ba fi colonial yi bàyyi woon ndax xaseen xalaat mooy woy ba léegi waaye bi fi Senghor jógee ba Abdoulaye Abdou Diouf ñëw en 1981 la wax ni amuñu système éducatif maanaam Sénégal amagul ba tey école boppam kon nañu taxaw lu ñu tudde états généraux de l'éducation càmbaraat njàngale mi ci réew mi woote mbooleem kilifa diine yi ci réew mi ak ñi nga xam ne njàng ak yar soxal na leen dajooloog ñoom lu tollook ñetti fan ba ñeent ñuy waxtaan ñu jàpp ni ca biir loola war nañoo war nañoo dugal njàngaleem diine ci école bi ndax sénégalais yi diine lañ bëgg a jàng waaye du ay tubaab yi kese ndax gis nañ ni li ñuy wax nisbatu tamadrus maanaam toowu scolarisation bi ñi nga xam ne ñoo toll ci jàng ñi ci ëpp newuñu ci école gouvernement bi ñii ñi ngi ci daara yi ñi ngi ci feneen waaye jànguñu ci école gouvernement yi te loola ci nattukaay yi ñuy nattu natt njàngal ci am réew ndax mi ngi dox wala déet maanaam ñi nga xam ne ñoo toll ci juróom-benn at juróom-ñaari at ñi ca ëpp dañoo war a nekk ci jàngale ci daara yi jàngale ñu man leen a saytu xam leen loola ci tegtal yi wane ni njàngale mi mi ngi dox ci réew mi ci la bokk bañ ko saytoo gis nañ ni néew na lool. faible na lool taux boobu dafa faible te bokk na ci li tax mu faible maanaam jàng sénégalais yi jubluwuñu école tubaab bi li tax parce que jàngaluñ leen liñ bëgg a jàng muy diine kon nañ fa dugal njàngaleem arab nañ fa jëgal njàngaleem diine te ku ne njàngaleem diine nag comme ni ma ko waxee sànq ne njàngaleem arab ndax ñoom ñaar ñoo ànd loolu bokkoon na ce dogal yañ jëloon en 1981 ci états généraux yi ñu defoon ci éducation nationale ci boobu itam nangu woon nañ ni njàngaleem arab itam wax dëgg yàlla am na place ci biir système bi ndax ku ne diine ne luga ya kon nañ ko dooleel gën kaa fullaal bañ a yem rek ci jàngaleel kal kalbun baabun ay jumal xasiira yoo xam ne tax itam jàngalekat bi bu koy jàngalee day bàyyi ba 5 heures ba xale yi wàcc mu ñëw taxaw nag ne xale bu bëgg a jàng arab na ñëw fekk ma ci biir nga xam ne léegi léeg doo gis kenn léeg nga gis ñaar léeg-léeg nga gis ñett léeg nga toog ñaari ñaari weer doo gis ku bëgg a jàng nga dem ñibbiwaat sa biir kër loolu amoon na kon nañ ko fulaal moom njàngaleem arab ci biir système bi loola ci état général ci ci 1981 ndaje mi ñu amele woon fii ci Dakaaru ci lañu ko ci lañu ko do jëloon comme dogal jëloon nañu dogal itam li ñu wax langue nationale ndax itam nag wax dëgg yàlla yenn yi leneen lay nuru di sonn ci langue française di song ci làng arab te yow say langue yi bopp nga sàggane ko loolu tax loolu tam taxul kenn jëm fenn loolu dinañ ci ñëw ci kanam dinañ ci ñëw ci kanam yooyu dogal lañu jëloon ba tax ñu ub ubbi euh, taxawaloon ab commission boo xam ne mooy saytu loolu liggéey ci ba loi d'orientation bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir tabax programme école yi bees yi ñu saytuwaat ko yóbbu ko assemblée nationale pour ñu voté ko commission boobu liggéey na ci loolu yépp ba bindu loi bi waaye ay gàllankoor am ca tukkee ci ku ñuy wax Jean Collin Jean Collin loolu moom ci jamono yooyu professeur Iba Der Thiam moo nekkoon ministre de l'éducation moo ko wax ci làmmiñu boppam ne Jean Collin moo gàllankoor loolu ba kenn jotuta dugal njàngaleem diine ci école yi ci jamono yooyu nga xam ne xaraar la boo xam ne dañ koo jëloon alal mustawal watani ñi ñàng ak yar soxal ci dëkk yépp a daje nas ko waaye benn waay bu kenn xamul fu mu jógee moo taxaw gàllankooral ñu ko ci sunum réew loola 1981 la woon ñu ñëwaat ba ci 1990 ñu ngi ci tomb naka la franco arabe sosoo ci laa nekk ndax arab daa amoon à part France arabe ak diine dafa amoon muy daar yi ak école arabe yi amoon njàngaleem france kese léegi nag ñoom ñaar ànd nañ naka la ame ci laa nekk 1990 am na benn congrès bu ñu amal fële ca Thaïlande adduna ba yépp daje fa ñu yëkkati woon fa benn hëdëf nee nañu fexe ba lépp loo xam ne képp koo xam ne tuut tànk nga toll ci war a jàng ci àdduna bi ba mu daj na ñépp dugg ci école yi jàng loolu la ñu tuddee scolarisation universelle ak tarbiya lil jamia loola ndaje boobu xalaat ya fa génn yépp ci loolu la sotti woon ngir fexe nan la ñuy fexe ba amal loolu loolu 1990 la woon Sénégal it bokkoon na ca ndaje ma jëloon na fa engagement dogu woon ci ne moom itam lañ fa tëral dana wut ay pexe yu muy nas pour mën a doxal lu mel noonu ñu ñëwaat ca déwén sa 1991 ci la ñu door tëggaat li ñu tuddee alqaanuun at tawjihi mooy loi d'orientation mooy loi bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour mën a tërëral programme ci wàllu njàngale li ci sukk yépp ci loi boobu la ñuy sukkandiku xam nga ab programme ci am réew kenn du jóg rek tëral ko faaw nga yóbbu ko assemblée nationale ñu tëralal la loi bi lay permettre nga mën a tëralal tëral ab loi loolu la ñuy tuddee loi d'orientation loi boobu en 1991 nga xam ne ci lañ waroon a dugalaale njàngalem diine ci lañ waroon a laat njàngalem arab ci mim réew ci lañ waroon a valoriser waat sunu langue national yi waaye loolu yëpp bi ñuy sas bi ñuy bi tëggaat euh, loi boobu yooyu yëpp gis nañ ni bi ñu paree ca tëgg ga yooyu yëpp feeñu ci waaye bi ñu ñëwee ba 1995 ñeenti at ginnaaw loolu am na beneen multaqa bu amoon Saint-Louis boo xamante ni dañ doon wax naka la ñuy fexe yan pexe la ñuy nas ba nga xam ne dinañu fexe ba nit ñi ñëw jublu ci école bi ñu yëkkati li ñuy wax ah accès accès lañ koy wax muy al iqbal ala al madrasa al umumiya nan la ñuy fexe ba nit ñi ñëw ci école yi jàng jàng si parce que dañoo gis ne ñiy jàng ci école bi dafa tuuti lool boo ko boo ko comparé ak ñi nga xam ne ñoo toll ci ci age wala ci at yoo xam ne dañoo war a jàng kon yan pexe la ñuy def loola ñi ngi ko defoon en 1995 fii ci ndar la ndaje bi amoon ak yeneen i ay yeneen i réew ñu daje fa doon waxtaan pour nas ay pexe ngir mën a fexe ba école yi nit ñi niñ ko jëbloo niñ ko jubloo yokk noonu la amee. loolu mi ngi am 1995 loolu itam taxul itam yeneen i di continuer di am continuer di am ba ci année 2000 année 2000 taxawal nañ fa li nga xamante ni Nations Unies moo ko organisé parce que bi ñu waxee 2000 rek dugg nañ beneen. millénaire bu bees léegi kon àdduna bi dañuy daje xool yan objectif yan euh, mbir lañ war a amal lañu war a taxaw saytu ko lijjanti ko ci euh, millénaire bu bees bi ñuy dugg loolu biñ ci xalaatee ñu ne dinañ fexe ba dinañ fexe ba li ñuy wax xiif ak ñàkk ñu xeex ko ci àdduna bi xeex itam ba li ñuy wax scolarisation universelle ba ñu waxoon fële ca Thaïlande ñu indiwaat ko ne moom itam bokkal boole nañ ko ci ahdaaf yi ñu am ci alfiya bu bees bi ñu dugg ak yeneen ndax juróom-ñetti ahdaaf la nasoon ci jotaay boobu wax naa sanq xeex ñàkk ak xiif fexe ba njàngale daj ñépp jàng fexe itam yamale góor ak jigéen fex moo tax programme yu bees yi ñu gis yépp dañ koo nas ci kaw soog ko wàcce ci kaw suuf ñu koy doxal fexe itam boog jigéen ñu libéré ko loolu bokkoon na ca lañ fa nas nas nañ itam xale yi tout tànk li ci faatu dafa bari nañ fexe ba wàññi lii faatu loolu moom lu baax la fexe itam li ñuy wax sida ak li ñuy wax malaria muy siburoo xeet yooyu ñu fexe ba xeex ko ci àdduna bi ak yeneen i xeex yi nga xam yeneen i jàngoro yi nga xam ne dafay tasa dafa tasaaroo tey faagaagal lu bari ci askan wi fexe itam ba taxawal li ñu tuddee bii a boo xamante ni dafay am nekk bii a euh, bu set bu sell boo xam ne ku famante mën di nga mën a dund ci jàmm fexe itam li ñu tuddee saraka duwal ya am mooy ay partenariat pour ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey jëmale seen développé am loolu yépp ci ahdaaf yi ñu tëraloon la kon ci biir ahdaaf yooyu gis nañ ci ne la ñu yëkkati woon fële ca Thaïlande yëkkatiwaat nañ ko fii itam yëkkatiwaat nañ ko fii itam muy li ñuy wax escolarisation universelle loolu yépp di xew ba ci année 2000 ñu ñëw nag ba ci année 2002 xam nga senegal jël na ay engagement ci ne dina fexe ba li ëpp ci ndaw ñi toll ci njàng ñépp nekk ci école am yi danañu fexe itam li ñuy wax escolarisation universelle ñu liggéey ci fii ci senegal ba def ci ay jéego yu mag yooyu ay engagement la kon fokk ñu engagement yooyu fokk ñu fexe. ba amal ko taxawal ko doxal ko mu doon loo xamante ni dañ ciy mën a teg suñu bët loolu moo tax bi ñu ñëwee 2002 rek bi ñu jàngatee gis ni nit ñi pour ñu ñëw ci école yi faaw nga dugal fa njàngalem diine lañ dugal njàngalem diine ci école yi daa di créer li ñuy tudde école franco arab daa di lancer li ñuy tudde aussi modernisation des daara 2002 2002 lañ commencé loolu pour li nga xamante ni jëloon nañ ko ci ay engagement ak sunu yeneen naata naatangooy réew loolu ñu jël ci ay ay ay engagement ñu mën koo doxal wala ñu mën caa def loo xam ne dinañ ci mën a teg seen bët waaye loolu ba mu amee 2002 dem nañ ba 2004 ñu soog a ñëwaat loi bañ tëraloon 2011 91 ñu ñëwaat ba 2004 loi boobu ñu yóbbaat ko assemblée nationale soppi ko pour mën a dugal njàngalem diine ci école yi loolu ci anam yooyu ci la njàngalem franco arabe juddo ci la njàngalem franco arabe juddoo kon gis nañ ni nekkul lu yomb nekkul itam loo xam ne ñi ko tëral. dem nañ ba gis ni jaadu na wax dëgg yàlla ñu def ko waaye dañoo dem ba nga xam ne amatuñu pexe faw jël ko man loolu sama gis-gisu bopp la amatuñu pexe ndax ni ñu ko jële la amatuñu pexe ndax ba ñuy tëral programme yi en 1960 kuy tëralal lu mel ni Sénégal ay jàngukaay lu ñuy jàngale ci am njàng cim réew di ko tabax cim réew fu mel ni Sénégal waroo bàyyi diine ginnaaw waroo bàyyi njàngaleem alquran ginnaaw waaye waroo jàngale bàyyi itam njàngaleem luxa arab ya ginnaaw kon ci anam yooyu ci la li ñu wax école franco arabe soso moom njàngaleem diine bi ñu dugal ci école yi école traditionnelle yi ak itam daara moderne yi nga xam ne lancé nañ projet bi waaye ana lan moo taxoon itam lan moo nekkoon hadaf bi ndax wax naa ci sànq sama xalaat waaye professeur mustafa Sourang ci 2002 ci jamono yooyu moo yoroon éducation ci bi ñuy taxawal école franco-arabe yi fañ ko doon nase waxoon na fa ni hadaf bi li ñu tax a jóg ci loolu ci dugal njàngalem diine bi mooy gis nañ ni wàllu jikko dafa gën di yàqu di gën di tumuraanke ci réew mi surtout ci ndaw ñi kon faw dugal njàngaleem diine ci école yi yaraat leen ci diine ñaareel bi mooy gis nañ ni TBS bi mooy taux scolarisation bi maanaam ñiy jublu école bi ñi fiy jëw jàng si dañoo tuuti lool boo leen nattee ci ñi nga xam ne ñoo waroon ñëw jàng si kon loolu itam buñ dugalee diine dana tax ñu bari ñëw ci école yi loolu itam ci hadaf yi la bokkoon amoon na beneen tam moo di wax dëgg yàlla nangu woon nañu itam nii njàngaleem diine lu ñuy wax demande sociale la fii ci si réew mi maanaam nit ñi ci boppam ñoo ko sàkk yàgg koo wut di ci def seeni pexe bopp di ko taxawul seen bopp donc dafa jaadu tey état bi taxawul ko taxawu ko ci anam yi mu ko war a taxawoo loolu it bokkoon na ci li taxoon ñu ne ñu dugal éducation religieuse lii moom ku ñu professeur Moustapha Sourang waxal na ko boppam ci li taxoon ñu ubbi école franco arabe yi léegi nag biñ ko ubbeeg léegi lan la fi def bi ñu dugalee école franco-arabe yi dugal diine ci école yi donte ci anam yu sama mbokk jàngalekat yi xam nañ ci dara donte ci anam la yoo xam ne warees na koo seetaat wax dëgg yàlla loolu ñuy wax nisbatu tamadrus moom njàngalem diine bi ñu dugal ci école bi ak école franco arabe yi ñu créé tax na mu yëkkatiku lool ñëw ba ci 93 pour cent te laata ñu koy dugal en 2000 mi ngi ci woon 69 virgule 40 léegi ñëw na ba ci 93 virgule 93 pour cent ci ñi nga xam ne ñu ngi toll ci tuut tànk war a jàng ñu ci ëpp ñu ngi ci école yooyu école gouvernement yi laay wax. ñu ngi ci ak école franco arabe yi nga xam ne léegi dañu leen di limaale ci taux boobu yu mel ni Azhar ak école yi nga xam ne dañuy jëflanteeg ñi nga xam ne mooy mooy gouvernement bi fexe na itam gis nañu itam ni budget bi léegi jóge na ci cent cinq milliards ñëw ba ci quatre cent trente deux milliards en deux mille onze nga xam ne li ñu recruter ci ay jàngalekat surtout ci wàllu luga yi jàngalekatu arab recruté na ci lu wat huit cent et quelques jàngalekatu arab te loolu yëpp ci li yëkkati budget bi la bokk ak yeneen ak yeneen kon gis nañ ni loolu itam njariñ la boo xam ne jàngaleem arab mi jàngaleem franco arabe bi ñu ko créé indi na ko fi mu ñu toll nii ñu ngi ci cinq cent école franco arabe ci réew mi département Kébémer rek egsi nañ ci vingt école franco arabe wala bokk vingt une ñaar fukki école ak benn am nañ ko fii ci département Kébémer boole koog nag ñi koy demandé pour ñu ubbil leen ko ak ñi nga xam ne dañuy demandé école française bi ñu amoon ñu def ko école franco arabe kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu fu mel ni département Kébémer ak département Mbacké ak fu mel ni Kaolack dëkk yi yoo xam ne ay kër diine dañ faa bari woon dañoo gis ne école franco arabe yi nañ fa poussé nañ fa yaatoo dafa dafa jéggi dayoo fi mu ne itam toll nañ ci vingt 26 collège franco arabe yoo xam ne ubbi nañ ko ubbi nañu aussi 6 lycée franco arabe te loolu 2002 la ak léegi te terewul yi nag nag daara yi ñi ngi fi bari lool tabarkàlla di jàngale diine pour wan le ni njàngaleem diine la sénégalais yi bëgg bépp système éducatif bu ñu mën a taxawal ci miim réew te njàngaleem diine jëluñu ko jox ko gëddaam bi mu laaj système bi duñ ci yaakaar lu bari duñ ci mën a wékk yaakaar yu bari loolu li koy wone kañ lañ commencé jàngale tubaab ci Sénégal barki de moo njaay am na benn débat bu mag bu fi ubbeeku professeur Sankaré indi ko fi professeur bu toll ni professeur Sankaré am ay agrégation ci grammaire ci langue tubaab ci affaire civilisation bu toll noonu juddoo ci Sénégal gi doon sénégalais waaye taxul mu xam réewam ndax système bi ko formé la ndax bu xamoon réewam man dama naan su xamoon réewam. du attaqué alquranul karim ci mim réew ndax alquranul karim ku ko xam ci Sénégal li fi mag ñi def ci Sénégal ak fi mu toll ci nit ñi kenn du xam réew mi di ko laal lu ko mënoon lu ko tax a yëkkati ko nag moo ko xam waaye dama ni rek en tant que intellectuel boroom xam-xam bu toll noonu bu xamoon réewam du yëkkati débat boobu ci mim réew te loolu li ko indi mooy dañ ko formé ci système boo xam ne sampuñu ko ci réew mi nga ci aada ak cosaan ak li nga xam ne mooy mbaax ci réew mi nga xam ne moom lañ ko sampal loola moo ca moo ca nekk ci ay seetlu su ko defee ñu tënk tuuti rekk ci li nga xam ne moom lañ jàpp ni mooy ay jafe-jafe ci njàngaleem franco-arabe bi tudd nañ sànq wàllu loi kooku ci jafe-jafe yu njëkk yi la maanaam dafa am lu ñu tuddee mabdaul ilmaniya mooy laïcité bi principe bu laïcité boobu ba ci 2004 2004 bi ñuy tëralaat loi bi nga xam ne programme yi ñuy jàngale léegi ci lay sukkandiku dañoo feddaliwaat mi école sénégalaise est laïque maanaam laïcité la diine diine yoonam nekkul ci école bi foofu nag ñaari firi moo fa am ci lay laïcité ñaari dégg bi ci njëkk mooy maanaam lañuy doxal te li ñuy doxee daraay diina du ci bokk dañ ko ci génne ba mu set wala boog dañuy fexe ba ku nekk ci Sénégal sa diine moo xam ban diine nga bëgg nga mën koo doxal ci anam yim la bëgge loolu tamit mënees na ko firee ilmaniya waaye ñaar yëpp bu ci mën a doon li ñuy wax yarub diine dafa am lu mu laaj loo xam ne ñaar yëpp benn du ko ci mën a sottal yarub diine dafa laaj daara joo xam ne dañ koy saytu fexe ba xale ba du fa gis lu dëppoo wul ak liñ koy jàngal ci diineem kon bu fekkee ne école bi dañ ne école laïque la te jàngalekat bi jàngale diine nekk faak moroomi jàngalekat tam yi nga xam ne dañuy jàngale leneen lu dul diine di sol yeneen solin di yor yeneen i melokaan di def leneen lu dëppawul ak diine dana jafe lool jàngalekatu diine bi jàngal xale bi lu mu xam wala mu dugal def ci moom ci wàllu diine loo xam ne xale bi dana ko mën a dund ndax xale ci wàllu psychologie mag ñi ñooy ay royukaayam bu fekkee ne li nga koy jàngal ci classe bi ci njàngale rek lay yem waaye bu gisee bu génnee gis monsieur diw ma nga ŋaat dub sigaretam wala mu gis jàngalekat bu jigéen bi koy jàngal ci classe bi boo fi génnee mi ngi sol sipp su gàtt wala yére yu xat muurul bopp bi xale bi tanaaqudaat yooyu mu génn ci mbedd mi gis loolu dem këram ay waa waajuram sax mu gis lu mel noonu tanaaqudaat yooyu xale bu nu koog dund maanaam fu ñuy jàngale diine dafa am ay sart yu war a daje ci bërëb boobu pour njàngaleen diine ma mën a jur njariñ faw li ñuy jàngal xale bi day dëppoog li muy gis ci millier bi muy dund yépp loolu tarbiya islamiya condition yooyu ci surut yi nga xam ne mooy tax ñu taxqiq ahdaafu tarbiya islamiya loolu ci la bokk kenn mënul jàngale loola moom kenn du ñu ko jàngal ñun senegal suñu mag ñi jaaraama ñoom réussir nañ ko ba tey bañoon nañ ko sax ba fuñ sanc daara bu ñu demee ba bii abi environnement bi commencé loxo yi di ci bari ñu jóge foofu dem feneen ndax xam nañ ni liñ bëgg a def ci nit ñi dafa am ay sart yuy tax ñu mën ko cee def kon jàngale diine ci école boo xam ne dañ koy tudd école laïque moo xam luñ jug jublu ci laïcité bi wax dëgg yàlla ci sama gis-gis problème la dana gàllankoor diine jàngalem diine moomu dana tax mën naa tax lañ ci soxla duñ ko ci am beneen tam ci loi bi mooy mabdaul ixtiyaariya maanaam choix nga xam ne léegi bala ñoo jàngal sa doomu diine ci école tuba ci école sénégalaise yi dañuy woo waajuram ndax nangu nañu jàngal doomam diine bu ko nangoo ñu ne ko signeel bu ko siñee moo tax biñ génnee programme bi sax boole nañ koog euh, acte yooyu nga xam ne ci la ñuy signé nga xam ne bu ñëwee da nga leen di da ngay seet ñi bëgg a jàng diine ñu jël ay engagement ni bëgg nañ seen doom jàng diine nga jël leen. ñooñu ngay am droit jàngal leen diine maanaam parent bi dafa am droit pour choisir ndax doomam day jàng diine wala du ko jàng loolu itam jaaxal na ma ndax école bi bari na lu ñu fiy dugal ci ay projet te kenn du ci sàkku parent bi gis-gisam ba mu des jàngaleem diine wàllu éducation fa à la vie familiale éducation sexuelle lu nekk dañuy ñëw dugal ko ci école yi mais kenn du ci laaj parent d'élève bi xalaatam waaye bu dee njàngalum diine faaw ñu laaj ko ndax bëgg na wala bëggul loolu itam dëgg yàlla tey na tey na sama xel loolu itam lépp ci wàllu luwaa bi la ba tey boo deewoon luwaa boobu ba tey ndax loi bi dañ koo changé nee nañ ndax liñ doon dugal tarbiya diini ya ci la bokk kon faw ñu jàngataat loi bi xool ndax nañ ko tërale dana tax tarbiya diini ya njàngaleem diine dem wala du dem ci laa nekk nii ñu gis nii foofu itam boo dee tëral ay loi wax dëgg yàlla am na ay mbir yoo xam ne faw nga bàyyi ko xel ngir liwaa bi mën a dox la nga ca soxla man caa amee ci ay njariñ loolu itam amul ndax ndax loi bu ñu ko tëree ba pare dañoo war a génnewaat beneen décret d'application décret boobu ba fii ñuy wax depuis 2002 ba léegi génnul niñ koy appliquer da nga ko war a leeral ba léegi leerul boo ko génnee itam programme scolaire yi danga nga ko war a tëralaat dugal ci diine bi nga xam ne ak luxa arab yi nga xam ne léegi dañ koy jëlaat en compte ba tey lool it kenn defu ko maanaam maanaam programme scolaire yi amoon depuis ca année ca ca loi bu njëkk ba ba léegi mooy dox ci wàllu loi waaye luwaa yu bees yi ba léegi amul ay tëralin yu leer yoo xam ne euh, nañ ca dugalee tarbiya diine ya dana leer ci bopp ki nga xam ne da koy jàngale mooy boobu la ñu tuddee loi 79 11 65 ba léegi kenn laalu ko te boobu mooy loi bi nga xam ne mooy tëral les programme kenn laalu ko te itam soo dee dugal lu bees lu mel ni tarbiya diini ya jàngaleem diine ci programme boo xam ne amu ci woon faaw nga xool la ñu tuddee ay raayaat la nga xam ne moom lañ doon visé moom la nga xam ne moom la ñu bëgg a taxqiq moom la ñu bëgg amal ci njàngale mi lan lañ ci jublu lan lañ bëgg a am lan fan lañ bëgg xale bii ñuy jàngal tey lan lañ bëgg mu mel ku ëllëg loolu fa nga koy tudde ci loi bi boo dugalee njàngam diine faaw nga dellu fa xoolaat ko ba jox ca njàngaleem diine bi lam ca mën a indi itam nga dugal nga yokk ko ca loolu itam defuñu ko loolu ci problème yi la bokk na ci problème yi itam ay muskilaat idaariya ñiy jàngale diine ci école publique yi amuñu ku leen ku leen israaf ndax da ngay jàngale diine directeur ba dëgër directeur école francais la xam yoonam nekkul ci li ngay def baax na baaxul yoonam nekkul ci am na ci ñox ñoo xam ne sax boo duggee ci ñun ah oustaz te ngaa dem moom dañoo kii su ko defee oustaz dem daal di wàññi ko waat dem ñibbi maanaam ñàkkal fulla li ngay def ñàkkal ko fulla nga xam ne yow ñoo mi jàngale diine ji soo xamul lan moo la nekkal ci li ngay def yow itam da nga koy da fay jaar sàgga rek ndax niñ la koy woyofale loolu itam ci jafe-jafe yi la bokk na itam ci jafe-jafe yi junjoon naa ko sànq mooy environnement bi xoolal Sénégal tey li fi nekk ci ay ay wasail ay moyen média yi rajo yaa ngi fi télévision yaa ngi fi internet baa ngi fi réseau yi ni ñu bare nga xam ne fi ñu mën a jaarale lu mën a lu mën a yàq ndaw yi tey bari na foofu itam fu mel noonu pour environnement bu mel noonu pour nga jàngale fa diine loolu it dana ko gàllankoor ndax li ngay def ci xale bi ci ci daara ji daf ko war a fekk ci mbedd mi lu koy jëmmal bu demee ca kër ga itam fekk lu koy jëmmal ca kër ga waaye bu fekkee li ñu koy jàngal yépp bu génnee ci mbedd mi contraire lool maanaam lu waroog loolu lay gis lu waroog loolu lay gis ay magi boppam ay waajuram ay magam euh, ay kilifaam di ko doxal ci pénc mi xam nga ni xale boobu pour mu am yarub diine loolu itam du yomb loolu itam problème la bu rëy ci wàllu njàngaleem diine fii ci Sénégal bokk na itam tudd naa ko mooy wasa euh, euh, mooy wasaayilu i'lam bokk na itam ñàkk wa maanaam ci loolu nag ñu ngi koy xool ci jàngalekat yi tuddoon naa ko sànq jàngalekat bi jàngale diine dafa war a am nu mu mel ndax xut royukaay la war a nekk ci xale bi mu koy roy di gis diine ji ni mu ko taarale su ko defee mu bëgg a mel ni moom waaye jàngalekat yi ñu ci bari nekkatuñu royukaay te du yem rek sax ci jàngalekatu diine bi waaye école bi dafa nekk yeneen jàngalekat même bu fekkee ne moom mi ngi góorgóorlu yeneen jàngalekat ya ñoom jàpp nañ ni seen yoon nekkul ci njàngaleem diine te loolu problème la ndax école menn mbir la mbooleem ñi nga xam ne ñoo fay jàngale ñëpp ñoo war a dëppoo maase ci ne lii moom baax na ndax moo tax ñuy tudd ñuy wax qaanuun daaxili réglement intérieur ci école la la ay règle la yoo xam ne ay sart la yoo xam ñépp ci war a tënku ginnaaw dugal nañ fi jàngaleem diine nag benn jàngalekat bu jigéen waratu fee dugg te muurul boppam waaye xalaat leen sart boobu tey nga dugal ko ci école française yi ñu jàngale diine xalaat leen ci wala bul sol lu dang wala bul sol lu gàtt wala benn jàngalekat bu góor bu mu fa duggati di tux cigarette wala muy saaga xale yi di ko dégg te yooyu day am comme dara xewul ci école yi kon jàngalem diine ci bii ay bu mel noonu wax dëgg yàlla man yërëm naa jàngale diine boobu yàlla na ko yàlla yërëm am na itam te boobu ci wàllu ci wàllu évaluation yi la wàllu natt yi ci njàngale mi ñuy jàngale ci école franco arabe yi gis nañ ko maanaam daaw lañ commencé li ñuy wax certificat ak entrée en sixième ci école franco arabe yi commencé di ko def daaw jég waaye seetlu nañ ci daaw ak ren liñ leen di jàngal ak liñ leen di nattee ci examen yi bokkul bokkul te comme ñu ngi jàngale ñu ngi jàng arab di jàng français bu ñu leen di natt itam war nañoo natt ñaar yépp ndax xale bi bileeng la war a doon waaye foofu itam ñàkk fullaal mbir mi tax na ja ña nga xam ne ñooy saytu wàllu examen yi ak concours yi bu ñu tëral wàllu ki xalaat yu xóot yu war a mën a indi nattukaay yoo xam ne dana mucc ci ayib mën a natt xale yi natt bu baax yooyu itam duñ ca egg dañuy jël mbir yi rek taxañ taxañ ko daal di envoyé mu ñëw waaye bu ñëwee nga gis ci ay ay manquement yoo xam ne doo mujj lu dul bind ay li ci seetlu di leen ko envoyé te ñu jëfe ko itam dara dara du la ci leer ci ëllëg kon yooyu ñooy jafe-jafe ci tënk yi nga xam ne moo am ci njàngaleem diine ak njàngaleem arab ci école franco arabe yi ba ci école publique yi sax ak fépp même yow mi yor daara sax sa kër di jàngale am nga jafe-jafe yi xam nga ni tey bu la waajur yi dimbali woon mbedd mi dimbali la li ngay def dana gën a dana gën a waaye loo def ci xale yi tey bu ñu génnee mag ñi génne ko ci ñoom télévision yi génne ko ci ñoom rajo yi génne ko ci ñoom kon war nañoo xool bu baax dundin wi nekkin wi fi ñuy dund naka lañuy fexe ba mucc ci ayib su ko defee li ñu bëgg def ci ndaw yi ñu mën ko cee def kon yooyu ñooy jafe-jafe yi ci tënk léegi damay dugg rek ci mustaqbal bi bu fekkee ni jàngaleem franco arabe day jafe-jafe yii xalaat nañ ci ba wutal ko ay solution faj ko wutal ko ay saafara buñ ko defee mën naa jur njariñ njariñ li bi ci njëkk moo di ne am na benn erreur boo xam ne dañ koo def depuis 1960 mooy ba ñuy tëral programme bi dañoo bàyyiwul woon xel njàngalam diine loolu moom danañ ko erreur boobu danañ ko defaraat waaye ci kaw nag ñu jox ko gëddaam bu boobaa danañ ko danañ jubbanti erreur boobu ñaareel bi tam loolu ñu wax jël ko muy ay engagement alal mustawa al aalami jëlando ko na ci wàllu àdduna bi yépp ko bokk jëlandoo Sénégal dogu ne ci dina ko def muy képp kuy tut tànk tong toll ci jàng ñu fexe ba nga jàng loolu it dana ko dana ko yombal ndax ñu bari daawuñ sawar ci école ndax lañ fa bëgg ñu fay jàngale jàngalewuñ ko fa moo taxoon daawuñ yóbbu seen doxam ñu école bu boobaa dinañ ko fa indi dana itam tax bu fekkee dëppale nañ ko bu baax ci ni mu war a tëddee dana tax ñu former ay ndaw yoo xam ne danañ xam seeni maam danañ xam seeni euh, aada danañ xam seen cosaan danañ xam seen mag ñu baax ñi ana lan lañ fi nekk woon ndax dama gis man ni Sénégal nga tëral fii programme ci wàllu yar di dem feneen di fa wuti ay référence ñàkk xam la bu dee ay référence ci wàllu yar ak defar nit ba mu baax sunu mag ñu baax ñi luñ bind bàyyi fi doy na sëkk dellu ca jàngal ko xale yi loolu itam sàggane ko mën naa indi gàllankoor kon buñ ci dugalee buñ ko ci bàyyee xel ba fexe ba mag ndawu tey yii xam magu démb yi loolu itam dana gën a jàppandil yar biñ leen di yar moo dana dana tax itam li daal Sankharé du daal sunu ndaw yi te itam jafe-jafe la woon ñu bari ñu daan jàng diine ak loxo arab yi ci Sénégal buñ demee ba am shahada sanawiya daane am jafe-jafe nu ñuy continuer seenu njàng lii nag bu doxee danañu ubbi ay kulliyaat dinañ ci biir université ba dana fa am ay faculté boo xam ne nañ fa jàngale ay dirasaat islamiya ay dirasaat luga ci luga arabiya yoo xam ne dana tax ñooñ itam ñu mën a wéyal seen njàng ba gën a euh, am doole ci ci ci ci ci seen wàllu njàng waaye man su may tënkee wax ji di ko fa jeexal moo di ne jàpp ni ndax dafa mel ni lii dafa ñëw ngir taxaw taxawaayu la fi nekkoon bu njëkkoon njàngaleem français rek moom la état bi daan saytu njàngaleem arab ak diine yi nit ñi di ko saytul seen bopp da ci def lañu man seeni pexey bopp léegi nag wut nañ njàngale boo xam ne état bi da koo jël en dugal ko ci école yi waaye man jàpp naa ni ba tey loolu du solution bu fekkee ni bëgg nañu am école jàngukaay bu baax bu mucc ci ayib boo xam ne danañ ci mën a sukkandiku ngir sunu réew mi jëm kanam faw sunu làkki bopp yi ñu sonn ci te bàyyi nag làkku jàmbur yi ñuy sonne sonn gi ñuy sonn ci làkku français bi ak di ko sonn ci làkku arab bi nañ sonn lu ko ëpp ci sunu làkk yi nga xam ne moom lañu ñu ndax nit kat amul lu dul culture te loolu ñi jàng diine bu ñu càmbaree aaya bi yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu qub wa qabaila li taarafu bu ngeen ko xoolee wuute gi ñu wuute ci làkk wuute dëkkin wuute melokaan loolu mooy sunu it ci lañuy xamante waaye yow boo ñëwee seey ca keneen kenn dootu la xam boo ñëwee seey ci keneen kenn dootu la xam kenn dootu la xam taarufa boobu taaruf taaruf boobu da ci daal di génn te alxikma ar rabbaniya mi ngi ci nit ñi am taaruf bi du dund kon seey ci weneen xet te loolu mooy loolu rek fexe ba sa culture nga sànni ko jël culture dund culture jàmbur di ko dund di ko waxe mel ni moom loolu mooy seey ci biiram kenn dootu la xamati kenn dootu la xamati loolu nag li koy mën a faj mooy sunu làkki bopp yi ñu sonn ci wax nañ ko ay yoon état généraux wax nañ ko fa fu nekk wax nañ ko fa programme bu nekk tëdd nañ liggéey nañ ci ay téere ñu bari sonn nañ ci ba taxawal ko te loola nag warul jafe Sénégal ndax ci suñu jàngat bu ndaw gis nañ ni mag ñi dañ koo réussiroon ku mel ni Serigne Touba radiyallahu taala anhu ana ku ko gënoon dégg luga arabiya waaye kenn mës na koo gis ni ab naara gi wala mu wax nga ni ab naaray wax dégg na luga arabiya lool waaye buy wax doo ko yëg waaye bu ko bindee nga koy xam ndax lam ca soxla woon mooy jànge ci diineem jàngale ci diineem kese bu pare na dellu ci culture boppam loola ci la daan yar tomb yim daan tombal mag ñi la koy tegtale ni daan waxtee nag nit ñi da koy tegtale loola mag ñi dund nañ ci lu bari woy nañ ci chaari nañ ci lu nekk def nañ ko ci ci luxa ci seen langue boobu culture boobu nag faw ñu dundalaat ko ngir bu ñuy def nit nit ngir ñu mën ñoo xam te boroom xam-xam yi nee nañ amul benn réew buy développé di te dafa sukkandiku ci làkku jàmbur japonais yeeg chinois yeeg mboolem réew yi dem yow seen yoon yëpp ndax lan xale bi di jàng luxa fran ah, bi ngay jàng luxa bi ngay jàng ci daara ji bi nga jàng ay alxuraan ba pare ana lan nga daj ci ci al matnul ajrumiya lan nga ci daj lan nga daj ci daaliya lan nga daj ci ibnu durayd lan nga daj ci maqaamaatul xariri sonn ci lool ngir bëgg a xam baati jàmbur nuñ koy waxe bala ngay dégg luga arabiya dem Égypte jàng ba jeexal am fanweeri at ak nangam loolu yëpp nga def ko ci jàng làkku jàmbur yow kañ ngay jàng te langue uti la wasila kese la pour taallum yow wasila bi nga fàggu ko ci fanweeri at ak nangam ñëw toog kañ ngay jàngi nag lii moo waral ñun amuñu ay boroomi xam-xam moo tax développé yombuñu dañuy defar rek lii ñu tiim yépp dañ ñu koo defaral yépp ñu ngi koy jëfandikoo ku luñ ci defar même jumaa ji ñuy jullee dañu ñu koo tabaxal lépp dañ ñu koo defal loolooy tegtal ni ñun amuñu xam-xam jàng luxa maîtriser ko taxul nga am xam-xam da koy jàng luxa maîtriser ko pour man koo jànge pour mën a sàkku ji nag xam-xam ndax xam-xam mooy looy jëfandikoo ci sa dund di ci jariñu di ci jariñ doomu aadama yi luga arab yi nag dinañ ko jàng ngir mën a gën a maîtriser sunu diine waaye diine ngir mën a jaamu yàlla waaye diine itam ngir mën a tabax àdduna waaye diine itam bëggul ko yaafus du jàkka kese du kurusi kese waaye àdduna bi itam war nga fee taxawal loo xam ne nekk gi nga nekk xalifatullahi fil ardi di nga ko jëmbal foofu laay jeexale waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu